nga xam ne daana ko taxawee muy taxawaay bu rafet kon moom mooy tëj jotaay bi ci ñaan li ñu la bëggoon laaj moom mooy noo gisee taxawaayu daara ji. waaw waaw taxawaayu taxawaayu daara yi kooku defe naa ni bu ñu ko bëggee tënk dañuy wax ni daara yi kooku dafa am benn taxawaay am ci biir diine ji waaye ci biir réew rawatina nag ci wàllu alquran karim parce que xam nga ni alquran karim mooy euh, téere yàlla yi nga xam ni moom la yàlla wàccee ngir mu defar doomu aadama euh, téere boobu euh, nag jàng ko ak jàngale ko ak yar njaboot gi ak tënk leen ci loolu mooy defar mooy defar doomu aadama mooy defar nit mooy defar itam àddina loolu moo tax taxawaayu daaray Koki taxawaay la boo xam ne taxawaay bu rëfar la bu rëy la bu yaatu la. yaakaar nañ ne xam nga sujet bi nga xam ne moom lañ tànn ren jii nii pour euh, waxtaan bi euh, muy manhajul quran karim fii tawxiidil muslimin maanaam jëmm bi nga xam ne moom la alquran am ci benn le jullit ñëpp di nekk benn euh, a a ñëpp mën a nekk ci wàllu ndimbal bu ko kenn téye waaw xam nga di euh, sant association ndeydaara yi nekk Louga tawxiidul kalima indi fi bis ak ndimbal lu am solo dafa nekk farata ni nga xamee ni kalimatu tawxiid noonu la amee far noonu la nekkee farata alquraanul euh, karim euh, bi mu ñëwee li nga xam ni mooy aay bi nga xam ni mooy waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu loolu lay mooy ay bi nga xam ne mooy symboliser li nga xam ne mooy waxdatul muslimin euh, waxdatul kalima nag ngir mu am nag faw ñu am li ñu tuddee waxdatul masdar maanaam fi ñuy jëlee nu bokk nun ñëpp fu nuy jëlee te mooy alquranul karim ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkee nun ñëpp foofu la nuy jëlee sunu kàddu dana mën a nekk benn waaye bu fekkee ni dafa am euh, ñuy jële ci alquranul karim ñi jële ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñeneen di jëleef ci leneen ci feneen loolu waxdatul kalima du mën a am moo tax alxuraan dong moo mën a symboliser li ñu tëddee waxdatul kalima mooy ñëpp àndandoo di jële ci alquranul karim lépp loo xam ni lu ñuy def la lu ñuy bàyyi lu ñuy wax lu ñuy jàpp lu ñuy bëgg lu ñuy bañ loolu lépp ñu koy della ci alquranul karim yàlla dafa ni wa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila allahi wa rasulihi ila allahi wa rasulihi mooy alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bu ñu bëggee waxdatul kalima faw ñun ñëpp ñu àndandoo delluwaat ci alquran delluwaat ci sunu euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam nangu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk sunu guide bi nga xam ne moo lay leeral moo lay niital fi nga xam ne fi la ñuy teg sunu tànk ci travers alquran karim kon alquran karim moom dong moo mën a symboliser wahdatul muslimin xam naa ni koy euh, jaajëfal bu baax a baax moom al oustaz euh, Makhtar Fall mi nga xam ne moo jiite ONG ak ñu koy jaajëfal bu baax a baax